histoire it nag def ñuy dimbale ba ñu bëgg nag sunu réew ak li ci réew def ñuy jàngalit nu xam démb ak tey ndax ku xamul sa démb doo xam sa tey te ku xamul sa tey nag sa ëllëg ah yàlla xam léegi nag jolof googu ñu bëggoon a wax Alburi moom moo jur buuna buuna moo di ci liste bi nga xam ni moom lañu defar moo di fanweeru buur ba jolof ak ñett maanaam moo mujj ci buur ba jolof yi Alburi moomu nag doon nañ ko wooye Alburi Seyni bu Jóob di ko dàkkantel ci ndeyam mbaa ci baayam biram pend njéemi njote bi nga xamee ni yàlla dogal na Cheikhu Amadou euh, gagné nañ ko ca Samba Sadio ci 1875 ca la ñu fal nag Alburi mu nekk buur ba Jolof boobu ma ci fanweeri at fanweeri at ak ñeent waaye waaye gannaaw bi nga xamee ni xeexu gille weesu na te xeexu gille mi ngi amoon ci le 6 juin 1886 tubaab yi ak Albury dañu signé woon benn convention ci diggante le 1er juillet ak le 10 juillet 1889 convention boobule dañ ko mujjoon transformé mu nekk traité de mu nekk benn traité de prétectorat prétectoral gouverneur Clément Thomas moo ko signé woon al Albury ci biir traité boobu Albury ci boppam dafa d'accordoon ni dana yombal yoonu saxaar gi nga xam ni tubaab yi dañ ko waroon amal mu jaar ci réewam dem ba Bakel tubaab yi jëloon engagement ni du ñu reconnaître benn buur ci jolof bu dul ak buri te itam du ñu nangu mukk benn noonam tubaab tubaab la mbaa jolof jolof la mbaa naaru njàmbur yi ñu mbaa feneen du ñu nangu mukk ñu dal ci kël alburi wala ñoom ñu leen di fat gouverneur itam nangu woon na ne aada yi mu fekkoon bu mu laata signé traité bi aada yooyu ak jikko yooyu dafay wéy gouverneur itam engagé woon na tem ni Alburi doomam ji tudd Buuna di taawam su jàng jotee danañu ko bu mu jàngi ngir boo liggéey mu doon koo xam ni dafay nekk borom xam-xam dox diggante tubaab yi ak ñun ñun bi maanaam dañ ko doon yóbbu Ndar ci des otages mu fa doon jàng ci xaalis boo xam ni gouverneur français ñoo ko doon amal ci biir loolu booba Jolof boobu moom itam nangu woon ni bépp liggéey boo xam ni jaar na ca Linguère mbaa Louga ci moomeelam daal lépp loo xam ni liggéey la bu jóge ci Jolof jëm Bakel wala feneen ci chemin de fer moom mooy joxe liggéeykat yooyu liggéeykat yi moo leen di joxe waaye dañ leen di fay liggéeykat bu ñu dem ba semaine ñu seet ni mënuloo ba ñu ni mënuloo liggéey ñu delloo la mu tànn ñeneen joxe leen waaye dañ leen di fay buur ba itam moom ci boppam jëloon na it ni réewam mi dañ ko dañ ko diriger bi maanaam dañ ko doxal ak njub bi loolu amee nag de ñu dem ba jamono tubaab ci seen bopp charte boobu ñu signé woon woon ci biir tubaab yi benn ku ko bëgg jaar sàkk waaye comme booba Albouri ñëpp nee nañu chef militaire la woon boo xam ne dafa mel ne dañ ko tàggat ci guerre mu am force physique bu ñëpp xam xam ni itam mën naa galvaniser ay soldaaram nee nañu gouverneur ci boppam moom daal di taxé Albouri nii moom ak waa jolof yi ni dañu dañu kippaangu ay jur yoo xam ne juru naaru njàmbur lañu jël ko moom ak nitam gouverneur taxé Alburi loolu teg ko alamaan niitam alal jooju na ko delloo si fekk loolu dara amu ci euh, noon yi rek ñoo jaxase woon wax lu demee noonu bi ñu demee ba ci mois de janvier 1890 Albouri jël na contact ak Amadou Cheikhou Amadou Cheikhou doomu Alaaji Omar Fuutiyu la pour ñoom ñaar ñu dajale ko def benn coalition pour def benn front de libération contre les Français pour jële leen ci réew mi coalition boobu tubaab yi ba ñu gëstoo la ko gën a dëggal dañu fekk Amadou Cheikhou moomule ñu naan ko Amadou Cheikhou Lamdo Julbe mu yónni ndaw lu tudd Agibu Taal ci Albury pour di dëgëral àndandoo boobu nga xam ni moom la ñu waroon àndandoo tubaab yi nag daal di am njàqare foofu nag ci le 6 mai 1890 colonel Dot ci boppam jóge Louga ak armée bu doy am na renfort junne. ak juróom-ñetti téeméeri cavalier juróomi téeméeri fantassin ña nga ca ñi jóge waalo ñi jóge njàmbur ñi jóge kayoor jàppale ñi nga xam ne ñooy di gouverneur pour ñu dal ci kaw Albouri le 24 mai 1890 colonel colonel Dodds daal di teg loxo ci yang-yang bi Alburi gisee ni armeem néew na doole ak i gànnaayam mënuñu dékku armée tubaab bi ndax armée boo xam ne yow ay petelu mëq nga yore rek ak i xeej ak i jaasi mënul dékku armée tubaab bi nga xam ne ay fetal ak i kënu te mu xam ne bu jaamaarloog ñoom mën na am nitam ñu bare danañu faatu te bëggul woon ay nitam faatu ci lu mel noonu ci loolu mel noonu mu jël décision moom ni comme noonu la moom day génn réew mi bàyyi ko ak moom dem fekkee Amadou Cheikhou ca lam rek jur bi dugg na ci lislaam gëm na ko fonk na ko mu daal di dogu pour génn réew mi pour dem waaye avant muy dem di jëm ci yoonu gàddaay boobu nee ñu xeex naag tubaab bi xeex yoo xam ni xeex yu jéggi dayo la te benn bu ci nekk won na tubaab yi jom ak njàmbaar goo xam ni bañ na ko ba xeex boobu nga xam ni tubaab yi duñ ko di xeexu xeexu xaru lañ ko tuddee ñoom waaye jolof jolof yi dañ xeexu tàggoo la bi bu def doo def doon tàggoo pour ni léegi mi ngi leen di bay réew mi moom génn dem waaye fexe daal ba réew mi kenn du ko faagaagal kenn du fi rey nit rawatina ak ñi nga xam ne ñooy soldaaram ci biir loolu tax na colonel Archinard mi ngi mi ngi wane ni daal ci rapport bu mu def moom rapport officiel bu mu def moom colonel Archinard mi ngi wane njàmbaaru Albouri combativité bi dem taxawaay bi nga xam ne moom la taxaw ci lépp loo xam ne ma ko doon def ci Jolof kooku wane njàmbaaram ak fullaam ni tubaab yi amul benn yoon boo xam ni mas nañ ko nawadi walla mas nañ ko xeeb wala mas nañu bañ yéem njàmbaaram ak i soldaaram ci biir loolu itam ñoom nee nañu Alburi bi nga xamee ni noonu mu doon defanteeg tubaab bi kat noonu la defantee nit ñi nga xam ne ñoom la bokkaloon réew mi te bokk ci këru buri ñëbu nga xam ne ka doon njiit doon jàmbaar ju moo doon Biram Njéemi Kumba Njaay ndax booba famille bu nekk néegu ndey bu falo rek ñeneen ñi nga taxaw pour xañ la sa wala jéem ci jot ci biir loolu ñooña ba ñu defanteeg moom gannaaw kun ku ne xam ne jaaroon na Kajoor xaritam yaak mbokkam yëpp wallu si ko ñu defante nag ak Biram Njéemi Kumba Njaay moomu ci biir loolu ca la ñu nee na ñu fexe ba Albouri gañe leen ñoom te booba Mbaba Basin Njaay ma nga ca ak baara ba te ñooñu ñëpp xarituñu wala ñu doon jàppale Biram Jéeme Kumba waaye Albouri gañe leen te xeex booba moom la ñu bañ ba di ko ni jamono yooyu ah, moo doon jàmme Njaay waaye Albouri daal wane ca jom gu sëkk ak xeex bu mot sëkk te fekk na booba ñi nga xam ni ñoo ko wur di waalo di kajoor di fuuta ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk yaa ngi taxawoon pour defar teeg moom waaye moom mu taxawoon leen fulla woon leen fayda dem na buudi dem na begaan dem na ndeer dem na gajaaga dem na nawduur loolu yëpp pour jàppale ñi nga xam ni ñoo doon almaam yi bu badi bu ñu ko doon sayer mati loolu def na ko kon bi nga xamee ni def na loolu kon defanteem ak tubaab bi kon du weesu waaye daal bi nga xamee ni moom génn na dem tubaab yi daal di jël doomam albu euh, buuna def ko prisonnier waaye alburi moom jóge fa dem mujj dundam nag ma ngi koo defee ca dooso mi nga xam ne way nga ko léegi te moo di frontière u Niger ci bi mu defee loolu kon dem na doom ji jàpp nañ ko ci 1890 ñu jël Samba Lawbe mi nga xam ne moo doon rakkam installé ko comme buur ba Jolof waaye ci diggante bi itam ñu folli ko daal di ko déporté ci 1895 ci diggante boobu nag. fekk na dëgg buuna jàngi na ba ñëw ndax yóbbu nañ ko ndar mu dem école des otages nga xam ni gannaaw gi mu ngi mujjoon nekk école des fils de chef et d'interprète bu mu fa jàngee ba pare ñu yón yónnee ko Afrique du Nord pour mu mottali xam-xamam bi mu dellu see tombeek nijaayam jooju di Samba Laobé Penda tubaab yi folli ko ci la Yamar Mbóoj mi nga xam ni moo doon chef supérieur Waalo taxaw ci garanteem ak ndëgërlaayam ak dogoom daal di nañ nañ fi bàyyi ki nga xam ni moo di yàq moo di euh, Bouna moom ci boppam dana ko fexe ba daañ ko fal te du am benn problème ci noonu la tubaab yi d'accord daal di jël euh, ki nga xam ni moo di Bouna jox ko réew. kon Alboury mi nga xam ni moom la bëgg ci moom dara di ko fàttali buur ba Jolof la woon ci 1875 ba muy falu mu ngi am fanweer at ak ñeent noonu la doxalee ba bi muy génn réewam jaayul ngoram benn yoon mësul yox yoxi mësul yóbbu fitam ñi mu dëkkaloon ci réew ma bokkoon ak ñoom réew ma mu war falu ñooña di la na ñoom ñu daan defante itam mësuñu ko yàpp ku mu ci mas daje rek wan na la wan la ak fayda ak njàmbaar ba am ndam Alburi moomee nag moo jur nag Buuna Njaay mi nga xam ni moo di fanweereelu buur ba Jolof ak ñett gannaaw nijaayam Samba Lawbe Penda mi nga xam ni moo wutu woon baay Bouna moomu comme niñ ko fàttalee woon rek ndax tubaab nee na répétition égale pédagogique bi maanaam mbir mu ne di ko di ko répété di ci jaamuwaat di ci delluwaat day gën tax ñi lay déglu ak yow mi ko wax rek nga gën cerner histoire bi mu gën dëgër ba nit ñi mën ci jëriñu Bouna moomu mi ngi juddoo yang-yang ci diggante 1877 1878 moo doon doomu Alburi Njaay ak Linguère ma jigéen Basin Njaay kon Baay Njaay yaay Njaay yaay Linguère la Baay la wax la war falu kon moom loolu ngeen dex bete bete xam naa kon moom la doon kon bi nga xamee ni baayam dem na toppi lam Cheikhou Lamdou Diouldé moom tubaab yi jàpp ko yóbbu ko primaire ca Ndar jàng fa ba génn ñu nag Afrique du Nord ngir mu def ba mu dellu see nag tombeek nijaayam jooju di Samba Lawbe tubaab yi wàcce ko lañ ko fal waaye fal ga boobu tubaab yi ngi hésité ndax comme dañu defante woon ak baayam ba baayam dem ñu ragal ni moom mii bu fi desee ëllëg mën na doon koo xam ni dafay am dafay nekk ku rancunier bi maanaam kuy garde mer ku am naqar wala ku bëgg a fayeeku waaye Yamar Mbodj nga xam ni mbokkam la te doon xarit tubaab bi di chef supérieur waalo ni leen man jël naa garanti ci xale bii ndaw la fukki at ak juróom-ñett la waaye dama bëgg ngeen dénk ko réew mi man dana ko jàppale man te dana doxal réew mi ni nga xam ni na ko baayam doon doxale wala nu ko ëpp sax noonee ca lañ ko fal mu ngi am booba temps juróom-ñett waaye mu dajale woon ay qualité yu bare ak valeur yu bare ci anam yëpp wane woon na njub ak njàmbaar ak xam-xam ndax moo di buur ba jolof bi jëkk xam njàngu tubaab xamit tubaab yi seen pexe mu nekkoon nit koo xam ne du nit ñi masaan di xëccoo bëgg yëlif dara wala bëgg am nguur wala daraja lu mu leen daan digal moo di képp koo xam ne yaa ngi di xëccoo daraja di xëccoo pal ëllëg buñ la ko joxee doo ko doxalee nu mu waree wala alalu réew mi d'accord pasar pasar boo waree falu itam na ko dox ci ngor ba ñu la waaye fal leen ma par force wala maa war a falu wala dénk leen ma nangam man lañ ko war a dénk nee képp koo xam ne def nga loolu doo mujj ak réew ma doo mu ak ñi la fu baax kon moom noonu la doxalee réewam kon mu nekkoon buur ba Jolof boo xam ne ñëpp xam nañ ko doon nañ ko it chef supérieur de province nekkoon it chef supérieur province honoraire nekkoon et délégué à l'exposition de Paris ci 1900 nekkoon it délégué des chefs de province de Laos yëpp ci exposition coloniale bu bu nekkoon na it membre du conseil privé di gouvernement du Sénégal mbooleem xeetu teraanga yi nga xam ne ba tànk yoo xam ne tubaab bi daan nañ ko fale ganaaw dara ja la yàlla jox ci sa réew bu ci ne tubaab yi jox nañ ko ko ànd na ñoom ci biir liggéeyam taxawal na jolof taxaw woo xam ni ñëpp xam nañu taxawaay ba ndax fexe na ba école yi ubbeeku ca yang-yang école ubbeeku ca sagata moo fexe bañu ñu taxawal e, saxaar gi diggante Louga ak Linguère ci 1927 mu daal di nag ñaar fukki at gannaaw faatoom 1952 la génn àdduna 1927 la ñu tàmbali te bi mu laata génn àdduna saxaar gi. ni mu ko bëggoon diggante Linguère Louga Linguère antu na moo di ki nga xam ne itam lii nga xam ne tey moom lu juddee bassin de rétention nga xam ni moom la président ral bi dénk lu ceeb ministre Djiboka bu na taxawoon nag di taxaw lu mel noonu kon bu fekkee tey dem nañu ba doomu Jolof di taxawal bassin de rétention bi maanaam fu ndox amuloon ñu fexe ba ndox am fa di ko jëriñoo mel ne ay déeg loolu buna moo ko jëkke woon Lac de Guiers mii nga xam ne it mooy indi ndox ci réew mi jóge waalo ba fii buna fexe woon na pour ñu aménager ko bokkoon na ci ñi nga xam ne genn wàllu saleeram am daf ko daf ko doon nangu di ko jox société prévoyance yi ne woon Jolof ñu àndandoo loolu pour fexe ba loolu ñu ànd di ko liggéey ngir ay infrastructure yoo xam ne dafa war a am ci biir Jolof pour waa Jolof di ca jëriñu ci biir loolu ca lafa fa bënn juróom-ñett fukki teen yoo xam ni ci xaalisu boppam ak réew ma yi fa nekkoon la ànd ba ñu yooya nit ñi di ci jëriñu defe naa moom woy ngeen ko ba tàyyi naan euh, bu na yaa bënnub teen waa Jolof di ca naan juróom-ñett fukki teen yooyu nga ni mi ngi amee ci sababam diggante bi mu faroo la ba ci 1930 ci la réalisé loolu yëpp am na beneen bassin de rétention it boo xam ni itam jëmmaloon na ko ca Labgar ba fii ñu toog tey am na lycée boo xam ni ca Linguère ñank ko tudde moom buuna kon kooku turam du fay am na it benn association benn kuréel goo xam ni itam ay sëtam ak i sëtaatam ñoo ca nekk ñoo jiite asociation bu loolu yëpp pour jëmmal ko moom xam ni nit la koo xam ni génn na àdduna waaye turam mënul fay amoon na itam relation ak kilifa diine yëpp ak kilifa aada yi ndax na ko ba amoon na wëllëre ak Abdou Salam Kane ca Kanel mm. jaxasoo woon nañu lool nekkoon na koo xam itam mu xaddamal la lañ ko ci tariixa tijaan te loolu Seydi Hadji si Sy moo ko ko defaloon loolu ba tax na sax moom am na ñaari doomam yoo xam ni kenn ku ne am nga tur ci kër Seydi Hadji Malick jaangoog Serigne Ndiaye Bouna moo loolu sëñ Babacar sëñ Babacar lañ ko tuddee am na El Hadji Mansour Sy kon jëflante na ak kilifa diine yëpp jëflante woon na itam ak sunu maam Cheikh Amadou Bamba Mbakke Xaadimu Rasuul ba mayoon ko ñaari téeméeri hectare ca Mbakke Baari mi nga xam ni maam Maaram Mbakke foofu la tëdd pour wane kon ni moom jëflante woon ñëpp moom bu na boobu yemu ca may na doomam itam. sëñ Mamadou Moustapha Mbacké may na ko doomam bu tudd Seynabou Ndiaye Bouna way kon moom jaxasoo woon na ak kilifa diine yi ak kilifa aada aada yi Seynabou yaay maamam ni nga mel noonu nga mel nawet ni nga mel maamam yi sëñ Moudou Moustapha nañ wooye baay Seynabou Ndiaye Bouna nañ wooye yaay abuna baye men ngel ngir alburi baye men ga dos pene pene mama ngel nen ko dana ngel nen jim war ko rom bu jambi nyaay lo baye ci kina to sa na ko de yemi ni biram yemi ko mami seigne basiru mbañ me ñaaw ci kunu ko ñaaw ma nga poroxaan buna ba mam burla sidi mamam burla ibrahim mamam burla tase la sambo borum nyaay nga war ko jërëjëf Alaaji Bu kon mu ngi noonu ci dundam défendre na kenn mosu ko lépp loo xam ne njariñ la lu doomu aadama wala kilifa war indi ci réewam ay nitam di ko jëriñoo taxawe na ko fexe na ba raay bi jóge ne lu nga dem fexe na ba bënn ay teen fexe na ba wut na ci salaam buuna buuna baayam buuna nan ne taala buuna buuna baayam buuna taseelat samba boorum njaaya nga war koo fexe na ba réew ma itam musuñu woon bekkoor ndax taxaw na ba réew ma daan bay di dunde di sàmm di dunde ci jamonoom tubaab bi ko jaar sàkk dañ ko warmaaloon jox ko cër ndax nee nañu mooy buur ba jolof bi njëkk a te boo jàngee rek da nga xam nooy doxalee ak ñu jàng ak ñu jàng kon moom yooyu la boole woon nan ne xaar buuna buuna baayam buur la tasee la buurum njaaya nga war koo fexe woon na it ba mbay mi développé càmm gi développé woon na it nii benn nit moo xam waalo nga jóge mbaa Fuuta mbaa Kajoor mbaa Siin mbaa Saalum ñëw dal ci kaw Jolof amul woon ñëpp joxoon nañ ko cër ndax jàmbaar la joo xam ni ñëpp xam nañ ko jàmbaar ja newoon ca baayam nee nañu ci moom a ko raw ndax xam-xam bi nga xam ni moom la am yar gi ko tubaab yar mu boole yaru tubaab ak yaru ceddo kon kooku force mu doon nit koo xam ni ku sàmm lay doon am na it ay ndombo tànk yu bari itam yoo xam ni tappaloon nañ ko ndax nekkoon na chevalier de la légion d'honneur nekkoon it commandeur de l'étoile noire du Bénin nekkoon it chevalier de l'ordre du Cambodge nekkoon commandeur de la légion d'honneur loolu ci jamono 1934 nekkoon na itam grand officier de la légion d'honneur 1947 nekkoon amoon na it grand croix de la légion d'honneur loolu yëpp xeetu teraanga la yoo xam ni tubaab yi bu fi nekkee jàmbaar yu mel noonu yëpp kenn ku ne danañu la ko tappal bépp loo xam ne teraanga la bu fi nekkoon tubaab yi di ko takkalaate takkal nañ ko buuna ci jamono yooyu ci réew mu taxawe ko ndey wan biigéen yaay buuna maamam buur la buurum yaay ku jànni de buurum yaay la mi ngi génn àdduna itam nag ci le 28 juillet 1952 génn àdduna gu teey gu lewat gu yaakaaru bi muy génn àdduna itam nag ba kanam mi ngi ci teewaayu Alaaji Abdul Aziz Si nga xam ni Serigne Mansour si magam moo ko yebaloon bi mu déggee ni buuna feebar na pour mu dem seeti ko bi mu ñëwee di ko seet si ca feebar booba cela la yàlla dogal mu génn àdduna ci loxo Alaaji Abdul Aziz xabaar bi réew mi yëpp yëg ko tubaab bi yëg ko gouverneur joxe ndigal lépp loo xam ne saal la boo xam ne dañ ko daan def ay ay ay po tëgg ki leneen mu joxe ndigal loolu yëpp ñu arrêté bu doon tëgg kenn tëggatul bu doon cinéma saalit buñ daan bu doon fu ñuy fooye yëpp ñu arrêté ko ngir màggale ko génn àdduna gi nga xam ni moom la seen kilifa gu rëy gi génn loo xam daal xeetu polo woon ak bànneexu àdduna gouverneur joxe na ndigal ñu tëj yëpp ñu aj yëpp ba bi paase yàlla dara tëwul bi mu gaañoo train spécial la ñu ko jëlee ba mu ñëw Linguère train spécial moom lañ ko yëpp indi ko ba Linguère fa lañ ko denc kan moo ko jullee Serigne Mansour bu sunu baay bu sunu maam Alaaji Malick Sy moo nga xam ni am na doom ju mu ko